jërë ngeen jëf aatu wadd ma réeroon feeñ na démb ba xëy di jàllaañoo ci yéenekaay yu tey bés bi le jour nañu doomi lay wadd ji di Karim Wade ginnaaw ay at yi mu toog kenn déggu ko mu wax def na démb ab déclaration ba def message bu mu jagleel askanu Sénégal teg na programme teg ci wax yéene ji mu am muy doon candidat buy juboole ak a boole maanaam candidat de l'unité et de la réconciliation journal bi nañu ginnaaw bi mu xam leen exil ba mu newoon jeex na moom Karim nu ne Karim Wade jël na daat diggam ak askanu Sénégal donte nag yaakaar yam wax ci discours démbam ba moom Karim am na yenn yu ci journal li quotidien xëy jukkil ci xët mu njëkk ci xët mu njëkk la ngi mu guux mi ngi mu lok ba léegi yàbbiwu ko ne ñaawlu waat na ko ca waxi démbam ji waxam joojee di discours démbam ba moom Karim Wade direct news ci seetlu ba bind ko ci xët mu njëkk moo di discours bu bari ay laaj yu amuti tontu lu tax moom Karim mu wax bu nuppite waxtu wolof journal bi nee nañu téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi ñu ne moom la amee réewum Sénégal looleet askanu Sénégal yépp bëgg nañoo xam ne da communication bu wax waa l'observateur ne gisul ci kàddu Karim waddi message bu fort bu ko mën a lu bari bari na yéenekaay ñu xëy ndool yu xëy dellu ci message à la nation bu président Macky Sall def keroog dimanche fanweeri fan benn ci weeru décembre 2023 journal Les nañu tàggatoo na tàggatoo bu doo yaram boolee cee kit wax li mu nar a def ci siisu mu njëkk Macky Sall tàgg na waa Sénégal le mandat nañu ginnaaw bi mu defee bilan bu fukket ak ñaar yi mu def ci bopp réewum Sénégal bu nuppi Soleil Sall teg na suñum réew di Sénégal ci yoonu yokkute boole ci ki digg na élection yi ñu jëm donte du ci bokk terewul dana def kémtalay kàttanam ba lépp ci yoon Sud Quotidien nañu ay jaloorem la génnee keroog ci taabal ji doon ko discours à la nation we message à la nation bés bi la jour ko tuddee mooy message à la nation sagesse ba des na ndax suur mi ngi ñuy wax ci xëtamu njëkk ne maire mi mu guuxal Ousmane Sonko ko moom ak donte ba ñu koy def dañu koo xumtu cib lieu privé la ko defee liñ doon bañ mooy état bi yi ko yàqal leen mouvement ñëpp bi daje keroog doon investir candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba xibaar bi mi ngi ci xët mu njëkk source wa ci monument de la renaissance yéen kaay bi ne nañu fa la xew-xew amee woon mobilisation bu rëy la fa gis mu doonoon ci teewaay premier ministre Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi waaye ci ay responsable candidature ay kàddoom ci yéenekaay bi muy wax ne li ñu gis nii daf ñuy gën a jox yaakaar ju rëy ci ne suñu candidat Amadou Ba mooy doon le candidat de la jeunesse euh, candidat yi seeni dossier nekk ca conseil constitutionnel tribune mi ngi ñuy wax ne ci première journée contrôle parrainage bi am na lu mat fukki candidat ak juróom yu ñu rejeté gum seen dossier journal lañ fa nañu la xewagum kay ca conseil constitutionnel du jàmm li dul jàmm mi ngi ci xët mu njëkku libération benn doomu Sénégal bu ñu fital mu faatu ci Amérique ci anam wu ñaaw te doy waar waa ji jiin ñang la tudd amoon ñaar fukki at ak juróom la jaare ba dugg États-Unis àndoon ak